bi sifle waat na Paul bu daaru ak Mamor ndeysaan ñu ngi noonu Mamor ngeen jàkkaar lool Paul bu daaru moo leen woon ginnaaw ndeysaan bëre nañ seen première quinze minutes ba temps bi jeex ñu dellu si waat lu ñuy defaat ñoom ñaar mbokk yi ku nekk am na trois avertissement ku ci am cinq avertissement dañ lay disqualifié da ngay perte par décision arbitrale ndeysaan gis nga Mamor a ngi dox ci koom nee na ko taxawal Paul dagg leewtoo bi ndaysaan ñoom ñaar bëgg xeex xeex bañ xeex xeex dinañ xeex ñoom ñaari xale yi Paul bu daaru ak Mamor ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi Paul bu daaru Mamor Mamor a ngi ree na loxo bi Paul bu daaru Mamor ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ba Paul bu daaru moo leen woon ginnaaw Mamor ngeen jàkkaar lool ndeysaan ñu ngi noonu Paul bu daaru ak Mamor ndeysaan Paul bu daaru Mamor ndeysaan ñoom ñaare gi noonu ndeysaan Paul bu daaru ak Mamor lamba ngi nii man lamb bu seere daf may def dàll comme dàll bu xat ci nit rek avertissement xool bu daaru quatre quatre quatre ñoom ñaar ku ci nekk am na quatre ndeysaan nee na leen bëre lii neexul na ci combat ay xale ñu fay leen xaalis bu bari ngeen ñëw ba fii te lu ne wax ngeen ko ci scientifique jeex Mamo dóor na lu ne wax nañ ko jëli na daan na ko daan na góolu daaru Mamo daan na ko wala déet lu xew lu xew lu xew lu xew Mamor daan na Paul bu daaru Mamor daan na ko